jaajëf euh, papale bi la jotaay xibaar dañu koy waxtaane yenn ci ay ponk ànd seex le député du peuple El Hadji Mouhamadou Mansour Diop maa nag yi tey sant yàlla alhamdulilah yeew gi <laughs> waaw sant yàlla bu baax a baax a baax yeew gi tiis na nag loolu dinañ si ñëw sax euh, faw nga yëkkati say kàddu yi seede waaye kàddu yi njaal waxtaan bi dañ si am ndax Birane Diadji Touré ni ma la ko waxee El Hadj euh, Serigne Abdoulaye Thiaw Laye xalif général des Layènes moom nag moom moo génn àdduna mi ngi toll woon si juróom-ñeent fukki at ak juróom benn ñu ngi ko jébal boroomam ni ki rek euh, ci démb gi sa jàmmalaay foofee sa peggu baay ba di Seydina Issa Rouhou mu mel uh, keneen ku uh, uh, génn àdduna moo di xalifa bu Thiénaba huitième xalif bu Thiénaba Serigne Abdourahim Seck moom it génne na àdduna mu ngi ko def rek ni ki démb gannaaw ba mu jiitee toogee si xilaafa gi benn at ak ñaari weer moom moomee Serigne xalif Serigne Abdourahim Seck doom la ci Serigne Momar Tall Seck moom moo nekkoon xalif bu njëkk bu Amary Ndack Seck Euh, moom nag euh, sa Maroc euh, la yëpp liggéey gannaaw nag ba mu fa demee doon feju mu ngi wutu woon nag xalifa Cheikh Ahmad Tidiane Seck ma nga xam ne mi ngi génn àdduna weeru juin ca atum 2020 El Hadj mu nekk ñaari xalif généraux yu nga xam ne ni ñoom ñoo ñu wan ginnaaw ni ki démb <coughs> mu nekk tiisu metti maam ci guddi gi daanaka ñu xaw a yéex a tëdd ñëpp yëg nañu ko laataa ñuy tëdd. Mhm. ñu fanaanoo tiis woow mais dem gi lu mënta ñàkk la. Mhm. dem. mun mënut a ñàkk la mais ki dem lan la ñu bàyyil lu ñu war a mën a topp. Hmm. loolu moo ci am solo. Euh, Serigne Hadj Abdoulaye Thiaw Laye ñëpp xam nañu ko ci euh, fraternité bennoo gi mu mus di dox. Hmm. message bi mus di amul benn bi mu nekkee mag léegi mais amul benn këru diine bu musa am xew-xew ci Sénégal lu dul moom lañ fa yabal. Hmm. wala mu demal fa boppam ba bi muy nekk xalifa njabootam yëpp da leen a tuddee. Mhm. njabootu Serigne Touba njabootu Cheikh Seydi Hadji Malick ak njabootu yeneen nit yàlla yu nekk ci senegal donc moom ci boppam mooy fédérateur. Mhm. moom ci boppam euh, mooy unité national donc moom waxu ko wootewu ko mais da koo jëf ci njabootam. da koo mhm. jëf ci ay jéegoom. ndax dañ ko xàmmee ci loolu man maa ngi ko jëkk a gisee ay vers quatre-vingt et quelques yooyu ci Abassa muy julli gi El Hadji bu saax doon def ci campement Ngexoor. mais ci laa commencé am xàmmee ko nag di ko xàmmee euh, ci xew-xew yi muy dem Touba Tiwaawan euh, nga xam ni kii def dafa am mission mag bu muy dox euh, dox na ko ba wàcc na ñu tëral ko ci wetu way juróom ci palaasu leer bi nga xamante ni bii doo fa aw mukk guddi même bu dee ba bëccëg sa tas doo yëg ni fii leer moo fi nekk mm-hmm. donc wax dëgg yàlla xanaa métit wi ci li mu tàqalikook ñun mais xel mu dal la demee. Mm. Euh, ki ci des itam lan la ñu bàyyeel donte yàggul ci xilaafa gi sëñ Abdou Rahim Seck. premier message bi mu jëmale ci nguur gi bi mu remplacé Seydou Ahmed Tidiane Seck mi nga xam ni moom lañ doon wax alxuraan ju taxaw mais moom bi mu remplacé premier message am mooy yéen ñi jiite askan wi bàyyi leen xel ci askan wi. Mm-hmm. ndax li ngeen am ci ay teraanga. moomeelu askan wi la bu ngeen ko lekkee bàyyi leen ëllëg di ngeen ko layoo ak yàlla. Ah, doy waar loolu laa jëkk retenir ci message bi nga xamante ni bii moom yónnee yëkkati na ko bi mu nekkee xalif et loolu mu wax noonu muy message koo xam ni euh, xam nga ni àdduna séentoo toy fi lenn ci kenn. lu dul sa diggante yàlla ba tax ngay recadrer kilifa yi yor mooyelu askan wi teg leen ci yoonu njub loolu kon lu am solo la ci ñoom ñaar ñooñu seen dem wax dëgg yàlla tiis la ci Sénégal mais day yee Sénégal yi ñu xam ne àdduna jeex na de. Mm-hmm. àdduna jeex na de. jeex na ba noppi waaw jeex na ba noppi nag ñu war mm-hmm. xoolaat jikko yi comportement yi doxalin yi mbon mbon yi ak yeneen yi ñu mënta wax. voilà da nga daane dafa am solo àdduna dafa jeex ba noppi ku yeboo rek ku nekk takk bagaasam euh, teg sa buntu kër di xaar horaire bi ndax dee day bette euh, Birahim ñu ngi doon waxtaanee sànq moo di waa Africa.